mbokku Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa gan ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaarange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar Cité Port Kenok Juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg. nga xam ni ku nekk ci ñoom présenté nan la ko léegi ñuy ay kilifa yu parti doon ay kilifa yu nekk ci opposition bi yu ñu ràññee di ci boole kon nuyoo délégation boobu yépp di ko jël di ko teg ci sa loxo boole ci sunu ziar. boole si sunu cofeel boole si sunu yeesal taalu bi ndaxte fii nu ñëw sunu kër la même bu nu deful woon délégation ñu ñëpp ànd fi ñëw fi du ñàkk kenn ku nekk ci ñun ak ñi nga xam ni ñoo nekk sa parti ak ñi nga xam ni ñooy say ay sympathisants daal organiser délégation ñëw fii yegsi ci yow tàllal la loxo nga ñaanal ko délégation bi ñëw nag moom lanu ñu tuddee Yewwi Askan Wi nga xam ni coalition bu ñu teg bees la yàggul du ñàkk ni dégg nga ci presse bi ñi ko composé ñépp ci ñi fi teewul mën nga ci lim Ousmane Sonko. lim ci Malick Gakou lim ci xalifa Ababacar sàll bi nga xam ni soxnaam moo tawat moo tax mu nekk Paris yónni fi Cheikh Gueye lim ci yeneen kilifa yi nga xam ni ku nekk xam nga fi nga toll ci moom coalition boobu nag li ko tax a jóg mooy liggéeyal Sénégal ci jàmm fexe ba mbébét yi nga xam ni ci domaine bu nekk ñoo ngi koy noté ci biir réew ak ci bitim réew ci Sénégal ya fa nekk fexe ba mbébét yooyu ñu indi ci saafara tàmbale ko ci élection locale yi di ñaan mu wéy ba ci élection législative yi di ñaan tamit mu wéy ba ci élection présidentielle kon coalition boobu moo ñëw ci bis bu tedd bi indi ziaram ñëw ci bis bu tedd bi tàllal seen loxo pour ngeen ñaanal leen mais tamit di ñaan ci bis bu tedd bi sunu boroom wàcce xéewal ci biir Sénégal yokk jàmm ci biir Sénégal te loolu nag wax fa dëgg yàlla bi ñu jaaree ci sunu sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides xel yépp dal na xol yi tooy na ndaxte dalal nanu dalal bu rafet rafet rafet boole ci kàddu yu ñu bett lool lool lool lool lool ndaxte néew na kàddu yu ñu mel jóge ci kilifa tàbbi ci ay ndongo bu ñu demee ba toog mu wax ñu ni xam leen lenn mooy man mii dama jàpp ni dama leen yoreel bor baamtu kàddu yooyu ñett yoon loolu muy tekki ni daanaka li nga xam ni ñaanoon na ko opposition bi ci jamono yële ñu génn nin ko ko nangule te nag amul lu muy mën a ñaan kenn ci biir senegal ak ci bitim réew te doo ko ko nangul kon dafa baax rek wante xam na ni day digle ñu jëfe wante bu waxee loolu loolu mooy rafetal rek kon bu ñu ko waxee doon na li nga xam ni yëg nañ ko lool moo tax wax fa dëgg yàlla suñu tànk yi doon taal tànku taalube wante liñ fi jëlee weesu sunu njort lool kon daal ñoo ngi ñëw ci lii nu jublu di bis bi nga xam ni bis bu sell la bis bu màgg la bis bu special la ci calendrier musulman ci biir àdduna ñoo ngi ñëw di leen tàllal suñu loxo ngeen ñaanal ñu ñaanal Sénégal sunu borom gën fi wàcce xéewal gën fi yokk jàmm ndaxte lépp ci jàmm la xaj te ci ngeen ñuy woo te ñun tamit ci la ñu nekk kenn ku nekk ci ñun ci loolu la nekk te noonu lañu fas yéene àndandoo ci loolu lañu fas yéene teg sunu tànk pour Sénégal gi nga xam ni moo nu ñor kon daal ñoo ngi lay gërëm di la sant di la baalu ci waxtu bii nu yegg si ndaxte xam na ni buñ fi jaaroon tamit étape yi nu jaar yépp yow yaa ñuy diggal ñu dem fa moo tax ñoo ngi lay jéggalu wante di la xamal daal ni sa ay soppe sa ay taalibe ñoo fi ñëw di la tàllal seen loxo ñoo ngi lay gërëm di la sant waaw kay Mbàkke merci beaucoup. <coughs> sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na ñu ngi leen di delloo ak nuyoo bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne yëkkati ngeen ko ci turu seen coalition bi ngeen àndal kees Déthié Fall tudd na seeni tur yéen yépp boole ko kàddu yu rafet yoo xam ne dégg nañ ko bu baax a baax te loolu rek lañ xam ci moom kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi nuyu fi teew ñëpp ci seq ak yéen liggéey bi te buñ ci tuddee Khalifa Ababacar Sall tudd ci Ousmane Sonko tudd ci Soxna Aïda Mbodj tudd ci Déthié ñu mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp ndax nee na dafa bañ bu liwee di juum waaye nee na mi ngi nuyu ñëpp di rafetlu bu baax tànk yi ak jéego yi nii ngeen ko defee woon daaw ren bi ngeen sotaatee lii ngeen gën koo yàkkali te jubluwu leen ci dara lu may liggéeyal seenum réew kon nag kàddu yi nga wax dégg nañ ko bu baax te loolu rekk la ñuy séentu ci yéen ndax am réew moom ñaar rekk la ñiy wut baam ak ñiy wut kon nag li ci am solo ñoom ñi ko séq ñoom ñëpp ñuy rafetal rafetal gi it mooy ki yor di rafetal kiy sàkk it di rafetal buñ ko defee nag mu nekk jàmm yi ñëpp kon nag ci tànk kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko ci yow ñuul ndax xam nañ la bu baax ndax am na ay ati ati at booba néewu woon ci parti bi waaye booba yaa ngi ci opposition bi lu xew lu ne ci ka nga séqaloon yabal la lu nga ñëw lu mu xat-xat ak lu mu metti metti nga ñëw toog ànd ak ñun ba lépp jeex cofeel yi nga am ci ñun it xam nañ ko kon loolu ñu ngi koy jàpp bu baax di la jaar itam sa waajuru yu làqu di nuyu soxna Adja Mbodj soxna de moom sax xam naa ne maa ngi koy tooñ léegi na xanaa meer mi war naa jeex waaye moom yaakaar naa ne am meeram du yàgg ndax moom li nu boole dafa bëri day jàmbaar lool nag di taalibe waaye di ko am bu taxawaay ci réew mi te naka jekk nag te mos sa soppi li muy def lépp it ci ngëm-ngëm la koy def ak u njàmbaar maa ngi fàttaliku sëriñ Abdul Aziz Al Amin mas la koo nettali ci moom yoo xam ne du xañ na sax du waxi fii waaye lépp ak njàmbaar njàmbaaram la di nit ku am kóllëre nag ci nit nag moom ba amul kóllëre jërte jàpp naa ñi mu jaxasoo ci njabootu sëñ Tuubaa su fi bàyyi koo ku ne sa njabootu bokk lam daan seq ak ñoom da koo yokk waay wañu loolu na bokk la ci li tax ñu gën koo téye ndax nit moom lu muy def rek war na cee sàmm kóllëre kon nag sëriñ bi na mi ngi sant bu baax a baax dégg nañ kàddu yi rafetlu nañ ko bu baax li leen Seex Muhammadul Muntaxa waxit day na sëkk moo ëpp doole fuuf samay kàddu li ma leen wax ne leen da leen dama leen ameel bor loolu rek doy na loolu nag jëru dolli dara dara kon nag ñu ngi leen sant bu baax a baax di bëgg it nag ki dikki bu baax a baax di leen ñaanal bu baax di leen xamal ne bu ngeen yemoon ci moom itam kër sëñ Touba yépp ak kër seex sëñ Touba yëpp ak taalibe yëpp kenn ku ci nekk dana gëm ne ak si ngeen ci moom kon nag fi ngeen demaat fépp ak rafetal la rek te xam na ne dëkk bi xat na neexut a wëre tey waaye lépp fenn fu ci nekk la ngeen seq ak kooka ngeen bëgg koo mottali rek la kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ngi ngeen yàgg fee ñëw te yàgg ñu fee fekkit te sunu borom dëgëral kóllëre sàmm ko bu baax na la ko waxee woon nag incha allah bu ñu weexu sama màggal gi nag ndax sama diggante yow mënu mu faa yónni kenn te bii xew-xew bi am dama fee fekkutoon daa fekkoon sëriñ bi yónni ma Mauritanie waaye danaa ñëw ba ca gi jàll si la ñu ngi nuyu nag yéen ñëpp nag di yi nga xam ne moom it nit ku baax la koo xam ne am nañu kóllëre maa ngi fàttaliku ndeysaan bis bi Cheikh Mamadou Amine Bara li la wéradee ñu koy andi Ndakaaru moom mii moom ma woo ne ma Touba ndax dara xewu fi ma ni ko ah yëguma ko de mu ne ma sëñ Baara jëm siw Dakar ma ni ko ah yëguma ko de yaakaaruma ko it ndax ma ma ni ko Macky Sall léegi la fa jóge boobu mi ngi wut réew mi léegi la génn ci man matu ñaar fukki